Sénégal 4 TV yow yakum. ko ku ne mën na wax xalaatam ci Sénégal 4 TV numéro Sénégal 4 TV moy le 77 507 27 29 Sénégal 4 TV forever. bu dee gan nga ci kër gi nag bésal bouton abonnement bi te bul fàtte activer walla cloche de notification bi de ngir bañ a tardé benn ci ay vidéo yi ni def ay bis

ñu ngi leen di nuyu di leen jaara di joxe itam kenn ku ci nekk ci yéen sa wàccuwaay amaat nañu mbégte ak contentement bu baax a baax dikkaat ak yéen ci seen chronique di jour mbokk yi nag chronique bi c'est à la demande générale mbooleem ñi nga xamante ne nii rek dañuy safoo Azul Pro ci Sénégal 4 TV fu ne jote nañ fa message ci àdduna as eh, li xew ci réew mi ngay toog di ci pattiral ëpp na <laughs> ay ca chronique yi nga xamante ni yàggee ko doon faral di def ci xew-xew yi xew ci réew mi dafa am solo dafa am solo eh, te itam dañuy bëgg di am yow sa version eh, ci xew-xew yi nga xamante ne ni mi ngi xew ci réew mi ginnaaw ba nag diggee bor la te wolof dafay faral di lépp ni ñàkk def la nga dige woon ay war la tax rek ñu daal di delloowaat buum ca mboy mboy ga di leen wax ni dikkaat nañu ci Sénégal 4 TV ci seen chronique di jour ay gars yi yow mi nga xamante ne ne abonné ñu ngi lay ñaan rek nga daal di bës ci bouton abonnement bi bokk ci njabootuk euh, ñi nga xamante ne moo di Sénégal 4 TV activer cloche de notification bi moo lay yombalal vidéo bu dugg nga bokk ci ñi koy njëkk a seetaan mbokk yi tey li nga xamante ne mii rek ci la ñu daal di fas yéene waxtaan di wàllu coow li nga xamante ne nii mi ngi xew fële ca euh, yëmbal Eh, di benn waay joo xamante ni dafa demoon daal di takki ji soxna eh, bi mu amee deuxième femme eh, ki nga xamante ne ni moom moo di ñaareel bi daal di teg plan bu stratégique ba bi mu dellusee ci guddi gi ñu wax ni daf ko door cour yemul rek ci door ko cour waaye itam daf ko daal di set jam ko aussi li nga xamante a moom moo di coow li ni mu demee loolee lépp defe naa dégg ngeen ko ci sunu yi nga ñoo di Dakar Buzz ñu leen di euh, jaajëfal bu baax a baax a baax ci liggéey bu mucc ayib bi euh, fi nga ni bëgg sama chronique euh, mooy damay gis commentaire yi ci ñu ci baree baree baree bari ci commentaire yi ñu jàppal tànk ndaw di wax ni pourtant day bonul d'après ni nga xamante ne ni nonu la yaayu xalé bu goor bi expliquer donc di wax ni xeyna recc recc la wala ak njuumte la man may wax ni de ma part personnelle je ne suis pas d'accord du tout d'accorduma ak ci ñi nga xamante ne dañuy wax ni euh, ndaw si euh, bonul wala bokk lu ni mel euh, donc d'accorduma ak ñoom donc loolu mooy particularité bu Sénégal 4 TV bu fekkee ne d'accorduloo ak man ci sama xalaat mën nga dem rek ci commentaire yi nga wax ni d'accorduloo wa ilaa ngi jël numéro téléphone bu Sénégal 4 TV changé wul 77 la 507 27 29 bu ko defee nga daal ñu yónnee li nga xamante ne ni moom moo di sa xalaat ci yëf yi incha allahu rabbi daañu ko traité bu fekkee ni mën nañ ko jàllale dinañ ko jàllale ci chaîne bii di Sénégal 4 li tax ma wax ni d'accorduma ak ñi wax ni femme bi bonul euh, xëy na lu ko dab la wala lu ni mel dañuy sukkandiku ci kàddu yi yaay ji ñu yem fa kese dinañ génne waxu ñëpp ñu sukkandiku rek ci waxu yaayu xale bu góor bi nga gis ni coow li euh, njëkk na am lu jiitu sax takk gi di am muy guddi gi nga xamante ni nii ci lañu amee coow ñoom ñaar ba mu ñëw fekk ko mu takk ay bagaasam jël ay ay lam fa am lépp yore paakaam ni dafay rey xale bu góor bi yaay ji nee na ma laaj ko lu xew mu ne ko jëkkër ji day doxaat fa coow li njëkk a tàmbale waaw ki jóg pare yor paaka ngir jam jëkkëram ngir rey ko buub ay bagaasam dem ci lan ci sama jëkkër day doxaat lii li kooku bonul muy benn ñu téye ñaareel bi nga gis plan bu stratégique bi nga xamante ne ni moom la femme bi dawal du ma ñëwagum ci li nga xamante ni moo di les faits mais avant les faits mooy lan mooy tëgg na rendez maanaam boo préparé na ay yëfam ba nga xam ni mbooleem lu mu amoon ci biir néegu sëyam buub na ko dem yóbbu seen kër ngir mucc moo xam muy ay yéreem moo xam muy ay takkaayam moo xam muy ay FM mbooleem bagage moom bu mu moomal boppam rek buub na ko ci ab néegam yóbbu wut fu mu ko làq muy benn ci plan stratégique yi ci maanaam ci wàllu préparation bi ñaareel bi moo di mbooleem këyit bu jëkkër ji yore woon moo xam muy loo xamante ni ci wàllu bien la moo xam muy këyitu kër moo xam muy këyitu oto walla leneen ak leneen loolee lépp femme bi buub na ko yóbbu seen kër ngeen dégg ci waxu meer bi ak waxu jëkkër ji mu ni ginnaaw paaka bi mu yore woon lañ set bi nga xam ne moom la yore woon ak kuur gi dafa dawoon sax dem wuti ji essence kon lan la femme bi doon préparé tey xëy na ci ay gaañu gaañu la ñu yem tey ku góor ki xëy na ak jàmbaaram malgré que ni ñu expliqué gis nga ni soxna si moo ko ëpp doole moo ko ëpp gabari ndax jëkkër ji wax nañu ni ku tuuti la donc da ngay gis ni au delà de combat bi nga xamanteni ne moo am jëkkër ji wane ci ak jàmbaar ba tax mu mucc tey heure bi crime lañ doon wax man su ma doon classé ndaw si damay wax ni euh, c'est une criminel criminel la ndax crime bi duñu rek basé wu ci les faits yi nga xamante ni moom moo am par chance wala par miracle jëkkër ji réussir ci mucc ci non mais dañuy xool euh, bu fekkoon tey wàllu enquête la dañuy xool les composants avant durant et après c'est très important buy analyser benn mbir nga analyser ko avant pendant et après avant bi moy, lan mooy euh, plan stratégique bi mu utiliser avant que fait bi di am moy rawale ay yëfi boppam moom rawale li nga xamante ne nii xëy na tey ëllëg bis bu jëkkër ji faatu woon tey ci mi mom suba mende na ñëw taxaw mu ni nangam bi maa wala nangam bi maa wala nangam bi mom. donc c'est très bien calculé Benen bi ci des moy le jour J jëkkër ji mu ni la bi ma jógee Kaffrine di ñëw woo naa ko téléphone ñuy waxtaan man ak moom comme si rien ne s'était waxtaan bu neex la ñu waxtaan waxtaan bu dal la ñu waxtaan man ak moom malgré que xëy na jëkkër ji def na ci erreur erreur bi mu def mooy euh, le fait que nga takk soxna dem fanaani ji ci moom bay ñibbisi te sa famille yëpp yëguloo ci kenn ni yaa ngi ñibbisi xëy na loolu euh, ku góor ki erreur am la waaye loolu concerné wuñ li ñu concerné mooy feewu femme bi ci loolu la ñuy wu nous avons rek ci le jour J mu accueillir avec avec le sourire accueillir comme comme comme comme accueillir ben roi ne se doutait de rien du tout ba dem sangu ji bay ñëw ci bi nga dégg ñu dafa couper courant bi donc mi ngi délu ci stratégie bi pendant mooy avant bi mu armé woo moom ba pare ba xam ni yor na lay setam yor na paakaam yor na kuuram pare pour faat bakkanu jëkkër ji dafa bàyyi ba jëkkër ji dugg ci néeg bi mu coupé courant bi donc jëkkër ji wax ni jamono bi may dem man pour jéem a réparer courant bi pour ñu am lumière foofu la ko dóore kuur gi nga gis ni bu ñu sukkandikoo ci acte bi li mu ci jublu woon moom ndaw si mooy faat bakkanu jëkkër kon yow mi toog tey naan ndaw si bonul ci ban aspect nga ko ci ban aspect nga ko teg équipe bi ci ëpp importance nit ñi bàyyiwuñ ci xel moo di après les faits ndax wax naa la ne la fait boo mënti gis bu ñu koy analyser di ko décortiquer dañuy jël avant pendant et après après bi moo gën a neex mooy nga dóor sa jëkkëru cour xotti ko lañ set ba deret di sangu ko ba buy dox di glisser ci karaw yi nga jàkkaarloo ak moom ni ko pareeguma ci yow bu fekkoon ni regret am na mën nañ ni xëy na du lu mu tey mais nga jàkkaarloo ak moom ci instant bi direct di sangee ko di sotteeku ba mënatul taxaw mi ngi glissé nga jàkkaarloo ak moom ne ko pareeguma ci yow muy benn ñaareel bi moo di nga xëyaat suba jël sa téléphone dem ci sa statut di wax ni combat baa ngi soog a commencé dem ci sa statut di wax ni combat bi day soog a door avec ça nit ñi bëgg wax ni femme boobu kooku def loolu ba pare tourné waxaat ci li mu wax ñu ni kooku bunul ki def acte bu ni mel jëf ju ni mel taxaw bind ci statut na li ma def man rëccuwuma ci dara ñu bëgg layal bëgguñu gëm gëmloo ñu ni non li ko jëkkër ji def nangam ak sàngam ak noo non nañuy dawal suñu xel ci yenn yi ñuy dawal suñu xel ci yenn yi man de ma part personnelle ci sama gis-gis lima ci gis te gëm ko modi femme bi original criminel la man lolu la gëm lolu moy sama xalat bu fekkee ni yow sa boss dafa outé ak sama boss oubil nañ la bunti senegal 4 TV comme dañ ko don defee demb ak barki demb ay ca toutes les avis dañ koy recevoir sont les bienvenus nga jël numéro Sénégal 4 TV 77 507 27 29 bo ñu joxé sa xalaat incha allahu rabbi dañ ko traité defal lako montage dugulal lako Sénégal 4 TV aduna yépp jot li nga xamanteni ne ni moom moo sa xalaat ñu ngi tuub mbokk yi bu baaxa baaxa baax tay baax mbolém luñ ci wax muy lu jup ngeen xam ne ndimbal ak katana Allah buur bi la luñ ci wax muy lu dëng mbalu safanu ñu ngi koy tuub diko ko sunu suñu gàtt xam-xam la ak suñu ñak mëna wax di leen jox dig daje incha allahu rabbi ëlëk ci beneen vidéo assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh